séntu weer bi saa yu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu génn fii ci buntu soow bi nga xam ne moo jàkkaarloog télé El Hadj Babacar Kébé Ndiouga buñ ko séntoo nag ba yàlla dogal ñu sone sone gu njëkk nag ci la ñuy daal di jokkowaat ak kër Serigne Mouhamadul Mountakha lépp ndigal lu bàyyi koo fa moom rek ñu mën koo daal di jottali kon damay bàyyi kàddu gi ak Serigne Abdou Diop imam ginnaaw bu ñu ko séntoo jokkoo ak région yi. jokkoo itam ak représentant yi eh, ku mel ne sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khoudous ak sëriñ Modou Mbacke si ak ku mel ne sëriñ Modou Mbacke ci Bakel ak ñu mel ne waa commission bi nekk Espagne ak waa commission bi nekk Dakar yëpp su ko defee rek maase nañ tënk suñu kàddu bàyyee ko ak sëriñ Abdou Diop imam mu jottali ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ko sëriñ Fallou Gërsa waxee rek neen baaxoo def def nañ ko muy ñaar ak fan ak ñeent ci weer wu ne dana dikk ci jumaa ji fi ne nañ séentu weer lu ci waaye xam lu wér nga ñëw yële ko ci ni gën a sëñ Muntaxa lañ koy defee buñ ko defee ne dañuy génn ci sowu di séentu weer wi ak di taatan xibaare ci gox yi ban ko jëkkee ba na nga si nag mbooleem mboolem xibaar mboolem gox yi yëpp fu ne ñu e, laaj fa yi gën yi gën a sore yëpp ak yi jege te ñu wax ne ñoom gisuñu ko foofa kon dañu di xam ne kon tey jii mooy métti mooy mottali weeru rakki gàmmo gi ñu xam ne tey euh, euh, suba suba mooy mottali weeru rakki gàmm gi ñu xam ko kon kon ñaar fukk ak juróom-ñeent weer yu feeñu ji kon ñu xamee ko noonu kon altine mooy doon benn fan ci rakkaat ji gàmm gi kon ñu xamee ko noonu bu baax a baax di ñu ngi sant nag ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ànd ci liggéey bi bu baax a baax leen defoo ne mooy jokkoo kër Sëñ Muntaxa ba mu jox na ndigal ne leen ci doy doy na noonu waaye toogaat nag diir bu yàgg yàgg ngir bëgg a leerlu door a jokkoo ak moom ne ko kon noo ngi def eh, eh, kii bi mu ne loolu ànd na ca kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yi kon loolu mooy ndigal li ñoo xam ne weeru rakki gàmmu feeñul tey ci gaaw bi kon dimanche mooy nekk fanweeri fan altine mooy benn fan ci rakkaati gàmmu incha allahu rabbi loolu mooy ndigal li bàyyi ko fii ci jumaa ji mag ji ginnaaw bu ñu jokkoo ak sëriñ euh, Mouhamadul Muntaxa ba mu joxe ci ndigal kon ñu ngi leen sant di leen gërëm seen mbokk taalibe la Fallou Galass fi ànd ko ak waa euh, mosquée ànd ko itam ak waa Muxaddamatul Xidma ñuy sant bu baax sëriñ bàcc ci wàllu machine bi sëriñ Abdou Diop ci wàllu kàddu gi seen bokk taalibe Fallou Galassine wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.